asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 18 décembre 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la record la tribune bu dee yëglekaay bi di sunu làmb la moom. fële ni koy njëkkee yëglekaay bi nag tey dafa xëy ñëw kii mu ñu andil nag moo di ki nga xam ne moo di Zil mag magi ama ginnaaw nag ba ñu xamee ne combat ba léegi moom taxaw na Zil nag moom que xëy di dànkaafu muy móotloo ne ko dey li leer ba leer di nga xam ne basi moom góor dong nga koy bay te bis bu yàlla defee ba ñu tëj barrière bi ba ferme la ci biir yaag ama yow móotloo moom bu ko ragee di nga gis loo xam ne nii day mësoo koo gis ba nga nekkee ci lamb di bëre ba tey loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di siil zil moom xaarul sax mbir yay sedd teel naa wax la ñu naral muuru ak lañ fañ ko nar jëmale loolu mooy waxi zil balde waaye ka nga xam ne nag mooy président rock énergie moom moom xaadim nga jaga daa mel ni tontu na ko ne ko ñun daal lu mënta xew yaay wax waaye nun moom pare na nañu bu yàgga yàgga yàgga yàgg lu ci des daal jàpp leen na xanaa kay ci yéen la waaye nun moom pare nañu mu mel ni nag fi mu nekk nii combat booba olofa ko wax lu def waxu la lu ay di njàmbat kenn koo xam ne nag wax na ca muy biram ñing biram ñing nag la mu wax ci sunu làmb moo doy waar ne ñoom daal fi mu nekk nii moom signé gi ñu ak Luc Nicolaï dara biram ñing nag moo wax loolu journal sunu làmb xëy ñëw tey dina ko wax waaye terewul day laaj ki nga xam ne moo di record moom ñëw na ca combat ba ak ay yoo xam ne ñu ngi cay wax ba tey Jules Baldé mu nga cay wax xam na ne daal ca record ama moom roi lay doon Pape mbay moom ne na li leer ba leer moom mooy entraîné Modou Lo daal la mu xam le ne jàppal li am ba des daal Ama Baldé moom am na différence ak yeneen adversaire yi nga xam ne moom lañ daan bëreel maanaam ak ute am na ci loolu muy wax ki nga xam ne moo di Pape Mbaye mayor rek énergie tey entraîné nga xam ne moo di Modou Lo Ambroise sar tamit di entraîneur national xëy na di ca wax ci seeni force ñoom ñaari mbëri ak seen ay li nga xam ne moo di ay faiblesse waaye ka nga xam ne nag moom moo tëgg lam ja li di Luc Nicolaï am na koo xam ne day doomam la ñu koy wax William wala Willy Luc Nicolaï moom xëy na di wax Willy daal la mu xamle nee na léegi nag li leer ba leer moom Luc Nicolaï en ko moom Willy fi mu nekk nii day mooy patron ba nag moo koy diriger waaye nag xam na ne daal combat bi nga xam ne moo di Balla Gaye ak Boy Niang amateur yi bëgg ko nee na ñoom itam fi ne fi mu nekk nii pare nañ ngir jox ko amateur yi te duñ ca yem rëg-rëg ak bombardier itam nee na pare nañu ngir jox ko amateur yi loolu mooy wax wi li nee na daal li leer ba leer moom waa Ligue Nicolas Enko moom ren saison bii dañ koo bëgg a defara defara defar ba mu jàkk ñoo xam ne mii moom seeni mbir léegi arbitre suuf la ñu bëre mooy diggante Tapha Gueye numéro 2 ak ki nga xam ne moo di abu Niassé yëglikaay bi ne day combat de moo am tey fa nga xam ne moo di ca Iba Mar Diop loolu la ñu yëglikaay bi suñu làmb wax ne moom itam ñëw na ci boobu combat nee na muy a xëy ñëw di loo xam ne tamit fekk nañ fii nga xam ne nii daal moo di ca journal muy ay xale yoo xam ne tamit samedi la ñu war a bëri diggante ki nga xam ne moo di xeeru ngor ak booy yëmbal Pape Diagne Seras mu ngi cay wax nee na jàppal day lamb jooja moom lambi confirmation la ko Pape Diagne Seras dal di tudde waaye leneen loo xam ne ba tey dañ cay dellu rek muy diggante Ama ak Modou mu mel ni ki nag la tribune ñëw na ca la mu xam le nag nee na li leer ba leer daal fi Ama Baldé jaar ba dribble mu Balla ba jël Modou Lo loolu la yëglikaay bi di la tribune xëy ñëw dina ko wax waaye dañuy dellu ca record record bu ñu fa demee nag ku ne xam na ne tey jii moom jàppal kaay bi daf ñu andil ka nga xam ne moo di rëg-rëg ak MMA ba ak la ko ca jot a toppe ci ab xaalis jàppal yëglikaay baay wax de nee na encaissé na ca lu toll ci ñeenti millions keneen koo xam ne nii moom dañ ko wane ci journal bi amoon fa nga xam ne moo di ca Joal wala boog finalu zone neuf Yékini nag mu nga toog ak ñoom fa invité woon entraîneur national Aliou Cissé meilleur équipe football bi Cala ak ki nga xam ne mooy président fédération football ba Augustin Senghor ñooñu daal yax yaa leen invité woon ginnaaw bañ ko parrainé final ba ca dëkkam ba nga xam ne moo di Joal waaye football ba ba ñu wax nag ca la ñuy des ndax li leer ba leer ku ne xam ne na tey jii la classico ba Real Barça ca Camp Nou lay amee ga ca Barcelone li leer nag record ne na jàppal Modou ak Balla Gaye guleet tey ñuy bokk lu ñu bëgg seen ab rivalité ci làmb bi ku ne xam na ko waaye tey moom ñoo bokk fu ñu far ndax ñoom ñaar ñëpp Barcelone la ñuy supporter waaye man dama leen naan seen affaire la Modou yàgg Balla yéen a yëg man moom Real laay supporter te Real yal na fekk Barça ca biir Camp Nou duma ko duma yu metti Modou Lo maa la wax loolu Balla Gaye jëlal loolu yéen ñaar ko moom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 mercredi ñu doon ko tuddal tey fii ci Scat Urbam ca lañ demoon moo tax ñu solo ni ñu ko ñaanal bébé boobu bébé paate yàlla na gudd fan te am ndey ak baay bañ koy takkali soxna te lépp ñëpp fekkee ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yooyu am na solo nu ñëw nag si sunu laam sunu dafa xëy na dalal ki nga xam ni moom mooy Jules Balde Jules Balde soo ko déggee mooy frère Ama Balde moom daal mi ngi araftu ki nga xam ni mooy Modou Lo si bisu combat bi maanaam le 26 juillet suñu su barrière bi Modou Lo dina xam ne lépp dëgg la. ah waaw loolu la xëy wax moom Jules Baldé mu mel ni ki moom teel naa wane fa mu tooge wala ñoom la ñu naral muudu waaw loolu nag c'est normal parce que mooy magi ama mooy entraîné ama te itam moom la ñu gis këram mu dem récupérer ji xaalis ba kon yaakaar naa ne nag ah la mu gëm ak la mu foog ne mbërëm mën na ko def muudu da koy wax waaw la ca des nag la mu fa mbir may neexee mooy bu ñu tëjee barrière ba foofa moom la waaye doon jaay bu ñu ca yeggee day lamb bu keroogee ndax nag yéen ñaar dong ak arbitre yaa fay nekk kenn du dugg ci géew bi waaw su keroogee nag ndax la mu wax ne muuru bu keroogee ca lay xam ne dootu ko defati ah dañuy yónni yàgg rek di ñaan yàlla fekke le mois de juillet fekkee combat ba ak jàmm ñu xool mu doog am waaye daal xam naa ne loo ci mën a dégg la ma waxoon laay waxat rek ñaari mbër yu ambitieux yu am jom yu dogu yu bëgg li ñuy def ñoom la léegi ni ko laay boole Khadim Gadiaga tamit mi ngi wax si journal bi Khadim Gadiaga président écurie Rock Énergie fi nga xam ne foo la nekk nee daal Modou daal si bis ba dina pare sur tous les plans waaw pare day mooy gën a wóor Khadim ga moom itam moom maanaam boo kon boo déggee sax mën nga ne wax waxu Jules Baldé boobu la ndax koo xam ne nee ko bu ñu tëjee bare nga xam président écurie ba moom ni dañu pare kon xam naa ne bés ba danañ pare te Modou Lo wax dëgg yàlla dañ ne lu waaye waxati waxati saa yu mësul sumiku si làmb nga ne kii parewul waaw forme moom da koy indi ndax itam bokk na ci mbër yi gën a ñemee entraînement loolu sénégalais yi def nañ constat boobu ci moom parce que boo xoolee à chaque instant buy ñëw di bëri si day indi état bu baax a baax ah kon nag moo lay wan ne daal loolu xaadim nga wax it nañ ci bàyyi xel bés ba ñoom dinañu pare yàlla nañ fekkee bés ba te taal ko ñu nit incha allah journal bu amit euh, traîner dalal ki nga xam ne mooy William Luc Nicolas ñu gën ko xam si Willy di doomu Luc Nicolas mi ngi expliqué si journal bi ne nee na daal Luc waa Luc Nicolas en co mag 10 journée la ñu bëgg tëgg mais bëgg nañ tamit si 10 journée yooyu Reug Reug ak Bombardier wala boog Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Balla gay 2 dañ ko naan loolu ñu bëgg yàlla na ko yàlla réussir loo Willy ñu koy nuyu di ko ziar moom di suma waay di suma rakk di ku baax parce que tamit jóg nañ fii di dem Gambie xam nga mu dalal ñu Mbuur joxuñu ñu añ ba suur defe naa kenn yàgg maar mi fekke na ko ak Père Alsane yaa dégg muy koo xam ne ni vraiment moom itam gis nañ taxawaayam ci côté papaam ak ci côté Ligue Nicolas ko loolu ñu bëgg tamit yàlla nañ wala waa la ndax tey na ama Modou ak ak euh, wala Balla ak Boy Niang wala rëg-rëg ak giri ak 10 journée dañuy ñaan yàlla rek que ni loolu yàlla na am ak jàmm mais di nuyu tamit ku mel ni raay ba ndax ku xam raay ba xam kook léegi Nicolay di ko nuyu moom tamit depuis Mbour di nuyu soxnaam Filo. Euh, suñu jógee nag sunu nañ dem fi nga xam ne mooy record record tamit ñëwaat na ki nga xam ne mooy euh, la parole au coach maanaam ki nga xam ne mooy Jules Balde Jules Balde moom nee na daal rakkam ki nga xam ne mooy Ama Balde su génnee si combat beeg Ama euh, Modou dina nekk roi kii tamit di ko tontu Pambay Pambay di coach Modou moom nee daal Ama Balde. adversaire boo xam ne wute na ak yeneen adversaire yi nga xam ne Modou Lo moom doon am. waaw làmb fi nekk nii moom xam fu ñu tolloom ñu ngi toll ci bataille de communication bi. sax dana des mais communication bi wax ji. psychologique bi moom ya ak bu ñu ñëwee ci biir làmb ja. fala fala fala mbir moom ay teere ji waaye actuellement nag waxante lañ toll comme loolu sil wax ne bu ñu ci génnee roi doon ah waaw kuy bëreeg roi te mu yor roi bi moom boo ko daan kay daan nag ñun xamuñu ko Pape Mbaye itam li mu wax ne adversaire yi du benn effectivement du benn parce que boo xoolee ci côté at yi parce que Ama yàggul si làmb yaakaar naa 2006 euh, ay deux non ay 2010 yooyu la ñëw si làmba kon xam nga yàggul si làmba kon tey Pape Mbaye itam loolu mu wax lu jar a bàyyi xel la adversaire yi du benn yaa ngi dégg Ama nekk na adversaire boo xam ne ñun ci ni ñu ko gisee muy bëre depuis bopp ba tey mbër bi nga xam ne xamul lu adversaire am man du la may benn sens moom bu arbitre sañ-sañ la am da la koy tegal xëy na nag ñoom Pape Mbaye mi wax loolu tamit te yore mut loo yaakaar naa ne kon ñoom jàngat nañu Ama te yaakaar naa itam xam nañ Ama lu mu capable ak lu mu capable. record tamit ñi xamal ki nga xam ni mooy rërëg bi defoon na euh, combat samedi bi passé combat MMA ginnaaw bu mu daanee Sofiane daan bu yéeme par kawo mal ma ne ko dóor ko sonal ko lool si biir ring bi moom daal lañ ko jël def ko test antopage ñu xool nagam doppeewul ndax euh, combat bi victoire bi dafa yéem yéem na daal tubaab bi baax. Mm, mbaa gisuñu ci moom dopage rek. ndax ñun de ñaanu yàlla ñu gis am doppaas te rëg-rëg itam ni ruut koy doppewu xam naa ne daal géej gi moom ak mbaali jën yii ak caaroy jooju mu dëkk fa ma ko fekkoon kene ca géej ga xam naa ne ñeme na yooyu yooyu nag yaa rëg-rëg daal li ma xam mooy ah ñun de ñaanu yàlla doppaas ba réussir yàlla ba mu nekk kuy doppewu ndax mbër la ba nga xam ne tey yaakaaru làmb la waaye MMA bi mu dugg itam yaakaar nañ ne mën na cee bañ a gàcceel réew mi ndax mbër bi nga xam ne am na jom te xaleel te bëgg na li muy def te itam am na encadrement kon daal vraiment te loolu mais loolu lépp nag lu baax la parce que itam xool la ndax doo doppewu loolu lu baax a baax la loolu yaakaar naa ne dafay nekk loo xam ne mbër yëpp a ko waroon di def parce que dopage amul njariñ encore une fois te yaakaar naa sport yi nekk si àddina bi yëpp a ko blâmer kon defe naa ne du loo xam ne ni benn sportif rek bu bëgg kar am baax wala mu bëgg nekk au niveau wala mu bañ a nekk tricherie kat warul nangu sax di doppe wala sax mu koy xalaat rëg-rëg daal kon ñun ñu koy wax mooy MMA bi yàlla na ci gën a dem te gën ci réussir journal tamit ñuy xamal ki nga xam ne combat bi am tey si ngoon diggante Abdou Diassé ak Tafa Gueye de abundu mi ngi xamal ne Tafa Gueye di dina dem si làmb ja pour fàttelu fàtte Euh, amateur yi Pape Ndoye daan bi ñu ko daan euh, dimanche bi. maanaam dem tey ci sa lamb ji moom Tafa Gueye pour far rongo ñi waa Fass yi passé woon ci samedi ji ndax defet Pape waaw Abu Ndiaye ak Tafa Gueye la li am ba solo nag mooy xale la ak mag comme li ma waxoon rek Abu mooy gune moo gë moom moom la ay atam yu bari dese ci làmb kon tey xëy na moom la ñuy xaar mu ñëw wone loolu waaye nag kim ku bëgg woon mag la mu nga xam ne nii magum du magum ko koro la de du caaxaan de. Tapha Gueye 2 parce que li tax mooy yàgg na ci làmb longévité carrière dafa am lu koy may nit mooy benn di nga mën a bëre di nga nekk sportif di nga bañ jël teg sa yaram lu ci bokkul dafa Gueye 2 ba muy bëree ba tey nii mu toll noonu la ma sa toll te terewul bëri daan na fi ay luur ñu ko sut ëpp ko kon Abou Niass lañ koy wax mooy na tey na def ndànk ci comme daan na ay moromam tamit xale yi ah di moo armée fekku la fi ñoom fëgg la ana fëgg la ma ana Malal Ndiaye ñun ñëpp defante na ak ñoom te ku ci ne bañ ba arbitre soufflé dañ naan bu ko borom jàppee lem ko sànni ko fële moom looy def ak moom na leer Coens même bi mu koy daan bu yàggul Demba Diop kere xeex naak Coens xeex bu tar ba ñu atte leen dellu siwaat Coens balaa mu koy daan am na lu mu ñam kon dafaa mbër la de itam na xale la boo xam ne nii ci yoon la ne waaw l'ancien roi des arènes moom Yaxya Diop Yékini leen euh, tournoi zone 9 bu am Joal Fadiouth invité woon na fa nee nañu ay euh, kàngaamu football bi ku si mel ni Aliou Cissé ak ki nga xam ne mooy maître Augustin Senghor président fédération bu football waaw loolu day lu ama am solo ndax Yaxya Diop tam ni ci dëkk nekk fa xale yaru fa màggee fa fekk fa baax baax fekk la fa nga def fa sa carrière sportive ba mu jeex sa très normal tey bu ñu demee ba di la parrainer lu tourne lu toll nit euh, maanaam nawetaan zone 9 xam nga loolu tamit moo lay wan ne kon moom waa dëkkam di waa Joal ba tey ñu ngi ànd ak moom te jéppi wuñ ko bu ko defee moom itam mu jël ay autorité invité leen fa ndax Augustin Senghor ak Aliou Cissé tey kii moo yore fédération kii yore équipe nationale yi loolu tamit vraiment lu rafet la te loolu moo nekk rek entre làmb jeeg football bi moom lépp benn la quoi te yax ya loolu du première fois bi ndax di gis nañ fii ay vidéo am diggante mag ku mel ni ay El Hadj Diouf ay Patrice Evra international français kon moo lay Euh, xam-xamam. sportif la daal sportif la quoi yemul si lamb ji des kese daal. Babacar njeexanoo ak jeexal jeexale ak Leewtoo TV demoon seeti démb ki nga xam ne mooy Libidor dafa organisé woon open press Libidor ma war a bëreek ak ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye de euh, bu faas demoon ngeen yaraax daal neexoon na trop ndax gis naa leen si charrette yeeg lu nekk daal. Kayaar Kayaar lañ. Kayaar Kayaar waaw. muy ñu dëkk Lebu bu neex ñuy nuyu waa Kayaar yëpp mu war a bëri ak Serigne Ndiaye numéro 2 dimanche jee seen tëgg ko ah moom nag la ma ko xamal daal lu guddul gàttul da koy corriger ndax nee na ay moroom jaar nañu ne bu dimanche day corriger Serigne Ndiaye mbooloo nag dem gis naa ko mu baree baree bare mu génn Kayaar xam naa ne nag dimanche moom bu soobee yàlla am naa yaakaar ne ku yéex doo am place waaye nag Kayaar it nag loolu waaye mën a moom ceebu jën ko ay Penda Mbaye a yéen a yor yi jën borom jën a mën a toog ceebu jën Babacar da xaw ma nag ku lay simi ak ah, mbokk yi si kàddu yu la leen di tàggoo di jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay mère soo nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane ne déjà Brahma depuis euh, Italie Chérie Khadija Diallo di nuyu Mbaye Seye depuis France mi ngi vacances bu naan ko vacances bu vacances neex di ki nga xam ne mooy Asek Chérie Khoudia Seck depuis Italie di nuyu ki nga xam ni mooy Abou Gueye Papa Site Baye Fallou Diamaguène depuis États-Unis aussi manque ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu ki xam ne mooy Aïda Diouf ak euh, Aïcha Faye madame Nia di ko félicité encore si bébé bi euh, Pathé Pathé Faye duñu ki nga xam ni mooy Bombardier depuis Mbour Babacar di la wax nag am nga classique <laughs> classico Real contre Barça tey si ngoon la waaw loolu tey si ngoon la gis naa sax record ne ne Modou Lo ak Balla ba àddina di àddina tey lañ ma sa bokk luñ bëgg mooy ñoom ñaar ay supporteru waaye ñoom ñaar maa leen koy waxaat Modou yaak Balla laay wax tey yal nañ leen duma yal nañ leen Modou Lo yaag Balla Gaye laay wax. waaw loolu la loolu nag yàgg naa am si ñoom ñaar parce que ay rival lañu et lool loolu mooy sport ah. Mm. sport la rek ñoom xam nga loolu moom c'est le waaw sport moo si gagné mais du tamit suñu papa Ousmane Diouf bu RDV parce que comme lu may wax rek. dañ na lëg su lekkee alum na ko gërëme cooy parce que ñun bi ñuy nekk di gën a nekk ay xale bokk nañ ci ñoo xam ne ni ñoom ñoo tax ñu dégguñu parce que invité na ma rajo Dunia ay yoon yoon invité ma RDV xëy na boobu xëy na am na lu mu gisoon ci ñun ba tax mu daan def loolu kon maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal gudd fan mais di nuyu ñëpp Rimka Couture ko fàtte moom tamit maa ngi nuyu bu baax a baax ndax li ma sol nii moom moo koy ñaw moom mooy capot tailleur yi borom Touba Sandaga maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di ballu ñëpp ak yoo xam ne Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñi ñuy nekk à l'étranger di ay a defaral leen. kon kon yal na muudu muudu yëpp am jàmm waaye yal na ñëpp am jàmm. amiin ba suba incha allah.